oto bi moo insisté mi ngi noonu daanoon nag waaw Kaolack la xewee fii en face division de la douane de Kaolack